ne sunu sëriñ moo toj la mi ngi daaru kenn la moo fi tuuti ay yoo xam ne war na doom di nekk di ko ci moom ndax mel ni moom lu jafe la aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barke borom Tuuba ñu ngi nuyu sunu mbokku taalibe yëpp di jiital ci lool nag sant yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul di rafetlu tam teewaayu mm, euh, sunu mbokk taalibe yi muy waa groupe Ndayane Vision ñëwoon euh, fii ci Daarul Muxti ci diwaan bi nga xamante ni ñu ngi ko gën a ràññee ci kër Baye Makhtar Salane ñu fekk si fi ay mbokk taalibe yoo xamante ni mën nañ ne ay at yu bare ngi nii ñuy ànd ak ñoom liggéey bi ci bis bi nga xamante day bisub Serigne Touba di bisub maam Thierno Birahim muy bis bi nga xamante ni mooy mandargaay mooy euh, mandargaal daje bi nga xamante ni euh, ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba daje woon na ko ak jàmbaaram ji maam Thierno Birahim gannaaw bi mu ko dénkee liggéeyam bi ci tukki bi nga xam ne doon na ko amal ci atum 1895 sëriñ bi def juróom-ñaari at ci géej gi dénk maam Thierno Birahim lépp bi mu dellu see itam lépp lum ko dénkoon rek maanaam matal na ko rafetal na ko ba sëriñ bi gërëm ko si ba nekko ko cerno ndax man boo demoon bàyyi ma fi dinaa ko mën a matale nii nga ko matalee loolu kon muy lu rëy loo xamante ni bis bi nga xamante ni dañ ko jub muy bisub suba bi mooy bis bi koy mandargaal ñu nekkoon fi ak sunu mbokk taal bi nga xamante ni ñooy waa diwaanu cercle jawaaxir fii axbaari saraxir bu cellule bu Cambérène nekk dakaar ci njiital jëwriñ bi sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ lamin Sané sëñ Bamba Silla sëñ xalil sëñ Amdi Moustapha ak Cheikh Abdou ak euh, ñu mu ko àndal yëpp Massamba ak gaa yi nga xam ne ñoo ne fële ci ginnaaw ci waañ bi xam naa dañuy jiital rek jox jëwriñ sëriñ Abdou bu ko defee moom mu feeñal mbégteem ci bis bi ak taxawaay bi nga xamante ni mbokk taal bi am nañ ko ak lépp li nga xam ne rek rot na fi ci ndigal te gaa yi jëfe ko kon sëñ Abdou Lahad moom la ñuy jox kàddu gi. jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngàllama Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ah di santaat yàlla bu baax di julli si Moustapha di santaat bu baax suñu yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal xalifatul am sëriñ Muntaxa Basiru mu yàgg fu lool te ànd ak ñu koy ñaanal xalifa daaru sëñ Abbas Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak maam di rafetluwaat bu baax tey teewaay bi ngeen teew si diwaanu Silkul Jawaari bu Cambérène nga xam nga dañuy tënku si njiitu Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke Noreyni maanaam ñuy doxee ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni ginnaaw bi mu ci amee ndigalu sëriñ Saaliw ci turu diwaanu Silkul Jawaare kon moo waral suñu daja tey maam ñu nekk ay ndaw amuñu lu dul li di liggéeyal sëriñ Touba ci façon bi ci ndamal sëriñ bi moo tax ñuy def li daal kon du kenn dañuy si dara ndax lépp sëriñ bi la moo tax ñuy góorgóorlu di si naf nafi si anam bi di si daw bu baax a baax ndax tamit amuñu lu ludul bis bi muy màggal daaru moo waral tey suñu teewaay fii maam chaque année bu jotee ñu koy dajee ni di ko santee ni maam ci wàllu berne ci wàllu xasida yi ci dundal bis bi si zikru la maam lépp ñu ko si def ci bis bi ngir sargalee ko maam na ci daje gi mu daje woon ak Serigne Touba ca Ndar ginnaaw tukkeem ba kon moo waral suñu bis bi ñu gën amuñu lulul li moo waral ñu si naf nafe bu baax di santaan bu baax waa Ndayane Vision bi fi teew tamit maam ñu leen di gërëm ñu xam ne ñun ñoo ngi nii ci kër maam Thierno bi ñu nekk maam di fi liggéeyal maam no ci bisam bi nekkoon nag si wàccaay gi ngir waajal suba ndem suba mooy màggal gi maam ñu koy waajal bu baax a baax a baax tey ñu nekkoon si préparation ak mbokk taalibe yi ñu fi teew nii ëpp na lii ndax ñeneen ñi ñoo ci yeneen mission yi nekk ci di waajal suba incha allah suba nga xam nga lépp dañ ko war a tàmbalee ci culturel tijjee ko ci alxuraan ak xasida buñ ci dee ñëw ci wàllu berne yeeg dundal bis bi ndem loolu la ko sëriñ bi nammee su ñun jàng alxuraan jàng xasida maam berneel jaamu yàlla yi moo waral suñu daje bi tey daal ñu siy jégalu bu baax ci kàddu yi xanaa dañuy jox sunu jëwriñ rek suñ xalil moom mu yeggali li des ci wàllu bis daal jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. jërëjëf Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Borom Touba. jërëjëf Borom Touba. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. gàcce ngalaama Cheikh Ahmadou yàlla. di bu baax a baax. sunu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim di sant Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noré mi nga xam ne moom la ñu Serigne waa boole si yoon bi si liggéeyu maam Thierno bi ñu nekk boobu léegi nag muy ànd ak ñun si liggéey bi am comme ni ko jëriñ waxee sànq rek am du suñu njàmbaar du suñu dara daal ndimbalal Serigne bi la ak taw tawféex bu ñu tawféex Serigne bi tawféex la maam ñu ngi liggéeyal maam Thierno mu jaarale ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noré mi ñu doot ci bokk si ñi nekk xamante ne ay njabootam lañ ñoo fii si daaru tey maanaam ngir dundal bis bi bis bi nga xamante ne maam maam Thierno daje woon na ko Serigne Touba Fandar mu doon bis boo xamante ne maam bis bu rëy la si ñun daal biñ ko waajal ñaari ñaari weer wala ñaari semaine wala ci ay bés ay at lañ koy waajal ndax bis bu ni mu toll si ñun ndax ñaar ñi nga xamante ñoo daje woon Fandar bis bi na mu tolloon si ñoom bis bi nii rek lañ ko war a mën a màggalee daal si ñun te day bisu mbégte tamit si ñun daal day bisu bu baax a baax baax si ñun ñu santaat bu baax nag. maanaam daje fi mbokk taal yi fi daje maanaam di dundal bés bi maanaam comme ni ko jëwriñ waxee tey tey la ñuy tàmbali maanaam ngir jëm suba bisu màggal gi maanaam ñu koy tijjee si alxuraan ak jàng xasida naam borom bis bu moom maam loolu la ko ku tedd gi féetale woon maanaam xam-xam ak njàmbaaram si liggéey bi nga xamante ne mooy yoonu murit ku nekk gis na maam Thierno maanaam liggéey bi mu def si yoonu murit képp kuy murit rek ak ku dul murit maanaam xam nga loolu te loolu kenn dafa ko si moom ku dul Serigne Touba suñu yaakaar tey ak ëllëg maanaam moo tax tey mu sëñ bi mën ñu taw féexale maanaam ñun suñu bëgg liggéey Serigne Touba maam Thierno moo ko def si ñun jaar la ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni amaana sax moo tax muy demee nii mais du suñu njàmbaar du suñu passeef du suñu dara ñun mënuñu dara lu ñu mën rek Serigne bi la lu ñu mën Serigne bi la te ñuy santaat bu a baax suñu yaakaar tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul di santaat bu baax a baax Cheikh Ahmadou Kara Mbacké nooré ni ndax ñun si yeneen lañ nekkoon maanaam moom moo ñu dimbali maanaam ci tawféexu tedd gi maanaam womm ñu indi ñu si lii maanaam ñuy dund dëgg di dund yàlla di dund sëriñ bi loolu bu ñu a ba koy def rek maanaam si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moo waral lool di tuubaat si kàddu yi bu baax a baax a baax bu dee wax nañ fi loo xamante ne maanaam lu dëngate la xam suñu jëmm yi xeebu la ne wax nañ ko mu a tegu si yoon moo ko namee noonu di tuubaat bu baax a baax si kàddu yi jërëjëf sëriñ Tuubaa Nasru ay jikkoom yoo xam na war na jëpp doom di nekk di ko rey ci moom ndax mel ni moom lu jafe la